imam Ibrahima ñu ngi sóob te biir ndaay moom itam wax na ba tey dañu kan mu ne yonent yàlla Isaa dañu koo bañ ba rey ne moom wax na ba tey dañu kan mu ne yonent yàlla Musaa ba mu fee ko fi am sóob ko ca baaxul fal suuf mu ne waaye na ba tey dañu kan mu ne yonent yàlla Yuunus bu mu féetoo génn ko ñaan na ci yàlla moo nit waa dafa taxi mu ne yonent yàlla Luut ba mu ànd ak jabar war na ko moo tax keroog ñu wër ba ci suuf Luut waa dafa taxi mu ne yàlla yebal la ci ma koy ndoo ne maa ngi fay sama yonent yi ànd ak moom koyal koyal koyal boo tàggee ak ci kër gi naan ñu déglu ko. gaa yi la naan dëkkee nii état ñun ñoo naan mooy ñu lay wax ak ñu soog. loolu moom mooy premier bi nga gisee nga toog fii defe nañu ñoo la ko personnalité defe nañu ñoo la gën a yeew defe nañu ñoo la gën a jàng defe nañu ñoo la gën a xam àddina wax dañu lay xeex au contraire ñun ñoo la xeex. da ngay laaj ma rek Abdou da ngay laaj ma. jaadu lool ñu xam ne l'islam dafa am diine dafa am leer te képp koo xam ne jëf ñi nga jëfee ndigal bi moo ëpp li nga bàyyi tere maa bàyyi lay leen li nga tàppe waaye képp koo xam ne jëfee tere yi moo ëpp li nga euh, bàyyi ndigal nee na kooku sawar lu muy neex te duñu neexal kenn. ndax lislaam lislaam la ci jàngale lislaam jàngale lislaam la ci soit nga nekk jullit wala nga nekk yéegal waaye mënoo boole ñaar yi nekk jullit nekk yéegal man ta nekk soit nga nekk jullit ñu ko te dafa ne booy nekk jullit la bu ko cof foofu ko ñëw ci seen bi baax amul deux minutes da ngay gëm da ngay jëm te ka mooy mu ne naan isa xiila lahum aamilu kama amana naa ah gëm leen comme ni ñu xam ay nit lañu ay nit lañu boo déggee naas boobu ay nit lañu ñoo xam ne ay nit lañu xam nañu ak nit xaaloo dañ naan anëpp lan la ñu gëmee kama amana sufahaa lu ñu gëmee comme seeg yi suñu xool ne ala ñun moom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom waaw ñu lay fekk. yow laaj bi dëgg na waaw yàqu na ci man bu ñu waxoon li ma mën a wax ci wax ci gàtt rek mooy islam dafa am ay jégle dafa am ay teer te l'islam boo ko defee selon bi mu la neex yaa ngi koy defee selon bi ko yàlla digle li mu digle nag màggal la ñu lan nekk waaye dina defal li nga ci màgg waaye li mu tere amul bàyyi li nga ci màgg lépp la koy bàyyi. li mu digle man sax man ma def waaye nee naa defal li nga ci màgg waaye moom subhanahu wa taala li mu tere nee na amul lii laa ci màgg màgg la lépp la wax bàyyi lépp. islam la bu dee jaamu yàlla ngay seet li nga xamante ne moom. c'est-à-dire eh, maanaam ñu ne ko sax bàyyi na waaye bu dee eh, safaan bi moom dañ koy jëndee waxaat ci biir wax ji li nga xamante ne bii jullit ñi dañ ko desee xam mooy ñu la nekk suñu borom yow na fi am dina métti lool ndax dañoo nangu ci réew mi ñoo xamante ne bii dañu ne yàlla am na doom. nangu leen di jëflante ak ñoom di rafetlu ak ñoom ba sax ku leen ko jar. mais ñoom war nañoo mën a diisoo bu ñuy diisoo ñu ko ñu ne leen yàlla amul doom ñoom ñu ne yàlla amul doom ci Sonko la ñu mën ko. bu ñu la ñëwoon def la su ma jëlee parole dama naan yàlla amul doom. ñoom bu jëlee parole naan yàlla amul doom. kon su ñuy wute. waaw waaw. nit du nax boppam. Mhm. nit dafa ne du nax boppam. lan lay nekk ci réew mi li yàlla gën a bañ nga xam ne loolu kon asamaan si def ay gën a wàcc suñu xol bii mu ne rek yàlla am na la. Mhm. ñu nekk ci réew moo xam ne nit ñi nangu nañu loolu xaw nit. Mhm. ne loolu ngeen di wax war na cee mën a teew yéen ngeen koy dund yéen ñuy dund dañuy dund loolu mooy ban diine loolu mooy ban lislaam mhm. te dafay woon sànq jëriñ loo looloo waral ku ne lakk mu diine yéen moom mu jëflante ak yéen parce que wala ngeen diine yéen moom la jëflante ak moom mhm. parce que ñun li ñuy bëggoon ñu ñaan ne dafa gis dara bokkul te mën na ànd

am na ñoo xam ne daawuñu nelaw coono bu def nañ ko ci la def mais tey bu ñu leen jëlee yóbbu leen fële wax leen tey am na ñoo solo rek la doon def ah ci daaw jox. dërëb daje la te man maa la àll yóbbu naa dégg ñu ba ñii wax nga lool dafa kullu maa mar la yow dafa lay dara bés bu ko defee jàmm. démbal woon ci ma tey la leen. dama ne bu melee suba lundi kenn ko boole ak semaine. kon laaj bi mooy nan la ñuy nanguwale fii ci réew mi te gisoo ku ci conférence gisoo ku ci wax man de yàgg naa gis gars yi di sànni xeet rek ginnaaw li ma am mais dégg ko ma mukk bu conférence bi yàlla amul wax kenn naa ci waxtaan def ko thème bu riche ba maa ngi mu baax mu def te loolu mooy dëgg mën nañoo dëkk benn yi mboq bu ñuy baal ñu baal ñu ñëpp ñu leen baal ñu xam nga bu ñuy benn koñ bi defar instant ñëpp en direct seen activité bi am problème mais wàllu diine lu yàlla wax na day dëkk lu yàlla wax hmm. na dafa sàmm. yàlla nag mën nga bañ mbir nga gëm ko ba pare. di ci doole taw bi ba pare la boo ma dugg di naaj ñu def xat ci yàlla ñu ne ñu seen li nga tabañ ak li nga nangu ñu ne man de dugg na baax yéen a am na ko yeneen bi nit la. innama ana basharun mislukum la nit la comme yéen xam nga kon nit man lañu wax nit wax ci nit dara naan amul problème parce que doomu nit mais yàlla moom yëpp jox la ci moom am doom jox na ci moom am soxna doom jox na ci moom te wax na leen ko ñoom na leen man yàlla nan laay amee doom te aw na soxna. ñu jógee fii dëkk bi ku fi am doom te amoo soxna. bët bi lay xool yàlla leen man déjà nan laay amee loolu xew nan lay mën a dundale loolu loolu kenn waxu ci kenn waxu ci lan mooy seen débat Mouhamed bi nekkoon fële ci euh, Médina moom la yàlla nit bi nee na loolu loolu maanaam moom kat moom kenn waru am leneen lu mu roog moom di ko fiire maanaam su doon waa wàllu li ñu bëgg a def mooy wàllu bokkaale dafa mel ne dañoo bokkaale xam-xam te koo war a gis ku nekk xam nañ ni. nit ñoom nit rek nit nit moo tax nit ñëpp am na lu ma te yàlla def ñun ñi yàlla li muy am am kàttan mu ne mu am ñun am na lu ñu mën te mu am. kon daal te su ko bëggoon mën ko créé te xool yàlla xaaj na la te ñun ñii yàlla ñu koy ñu koy am saa su ne te moom bu ko bëggoon noonu ko moom ko waaye image bi nag yàlla bëgg li mu nga xam ne yàlla rek lay ko ñu ne yàlla lan ko xamante ne nii am nga ko su ko bëggoon noonu ñu ne ko yàlla bu ñu xëy ci lool te su ko bëggoon mooy. déedéet. li muy am am kan la ak li muy man man man yàlla bu ko yëg ba gis moom. la ñu bind ba xëy ba gis ñu wax lépp li ko yàlla bind mu ñëw ne maay démb maay tey indi ay kuréel ko mais loolu dara nekk waaye loolu bu ñu ci ay wax andi leen lu ne di dal ci kaw te daal ci kaw ñi nga xamante ne ñu koy yàlla yàlla nga sax ñu utal ko yeneen yàlla ndax dem nañ ba yàlla ñàkkal te loolu moo gën a gaaw. Mm-hmm. am nañ moo nekkoon ma ñëw di liggéey. voilà. yàlla ñun ñii ñu xam ne mën nañu xaar ba man ak li muy am kàddu. فالله هو الولي وهو يدينك وهو على كل شيء جاء من مالك رسل مولد في المصنع فلا هو من يزل في خلق الحاجة فسعيد الله من المولد على من يعمل لن يلقى المولد من ذلك قولا لله ملك السماوات وما فيهما ولا تسمعنا سمي الآية أو نسيها نأتي بخير منها أو نسمع منها لا تعلم ah dangeen xam ne yàlla moom dara dëkk waaye lii dëkk tëj gi moom wala traité moom yàlla loolu dëkk. yàlla tëj gi moom ma ne moom li ngeen am tànk ak man man ak man a traité loolu dëkk. kon kooku gën a tëjee ñu koy dugal benn waxumaa di ko dugal néeg ba di ko dugal dox. te liñ ko utale woon ñaaw mooy am na doom te amul sàmm. kon waaye sax am naa wax am solo moo tax loo ci for rek baax mais ndax da lay nekk waaye daal ku man te soo woon nii ma ne bàyyi si naa ko bu ko man waaw. te Sonko ñii waxuma ci ñoom waaye gis nañu naan ñoom te ñoom ñii muy wax yéen nga lii def nañ sax ñoom jàllab boobu ñoom yéen nga ñoo fi jëkkee te jullit yi te lii xew na. ñoo ne yonent bi léegi yow léegi suñu yàlla yi da ngay ñëw nga jaamu ko ab diir après ñu ñu pare ñu jaamu sa soxla yi dem maanaam ñu def ab diir ab diir. danañ ko wax nii. léegi xam naa dañuy soog a def parce que yéen a ngi ko defoon moo tax suñu borom teel kaa kii nga xam teel ko am wax yu bëri. waaw wala nga tax daa xam ne ko wala na lu xew ku ne xataa ak yow mi la. ñooñu seen jarab bu yéeg ñi duñu mën a déggoo ak na kii kàddu loolu da leen fekk seen diine ñoom li ñuy wax xam nañ ko. ok moo tax jullit bi nag foofu jàll bi ñuy wax. ay yii ñuy wax ndax yi amul woon l'islam benn bopp la. yeneen bi ji bi ñëpp la ko jëlee. Ababacar li mu mënoon amul ko mën. Mhm. Omar li mu mënoon amul ko mën. Ousmane li mu mënoon amul ko mën. Aliou li mu mënoon amul ko mën. yeneen ne bàyyi leen ñoom ñaar ak ñi des ndax ku ne la ñu jël kaw yoon rek. Ababacar dafa nekk ñoom Araab yi daan lay laaj. waaw bu ngeen jékki-jékki woon maanaam ñu dem ñu naan mën naa ko waaye nag ñu naan bu ngeen génnee si jaas ñu dem jënd ak yow parce que sax nga am nekk rek. <laughs> ma ne alhamdulilah bu yàlla tegee ci bopp ñoo xamante ne ñu dana doon seet rek waaw su ma jékki-jékki woon bi daa di doon am problème bu la génnee si jaas ñu ne ñu nag yow wala lenn ci yow ndax rek rek. wallaahi parce que l'islam maanaam kuréel bi mën na dégg waaye itam ñu topp ci ginnaaw dañu war a nekk ñëpp waaye lislaam ne ñu topp ci ginnaaw ñëpp ay alxames lañ ay jokk lañ leen mën a jàpp léegi kii jiite nag moom ci boppam am na solo maam bi ñuy wax fii nii fii ma ci leen baax su baaxee na balaa boobu baax boo ko waxee dana la. dëgg la. bëgg nañ ci yàlla dañuy nekk te jamono jii boo xamante ni bàcc naa sëriñ laaj sëriñ facteur bi day laaj la téeméer. mais loolu am naa ko ay facteur dëgg. léegi yéen ñëpp nag ku ko topp rek ñaa ngi topp. amul mukk doo gis mukk ci jamono jii ngir bëgg a dara ja ak bëgg a topp ak ñii bëgg nii doo ko gis benn sëriñ bu wax ne erreur nangu. dafay mujjee erreur boobu def sa dëkk. léegi bu ko defee dëgg nag kii mel na ne. ñu ne day toog nekk nekk ci ginnaaw. te loolu mooy branche bari yi. wallaahi ñu ngi toog ñu ngi toogee da ngay déglu da ngay seetaan xam nga bu ñu demee tey ci am réew ak sëriñ taxaw. ma ne ko ma tuddee. ndax fi jamono boo bokkee ci kër famille bi day jàpp kër taxaw ne ci lislaam sariya nit ngeen baal ma mën na amal doom jàppale jàpp. loolu loolu kooku fu muy def. man d' accord ah mais lu ñuy wax rek li nga xam rek sama. oui ah. ñu xool lu muy réagir. oui. amul problème am na yu boo ko waxee gaaw mais dañ ko tàmbali si ku nekk. oui. wax na sax ci weeru koor. am na nekk lu jigéen naa ko. lan la day day day waxoon na sax léegi day xeeti baax. ñeent minutes kër yi dañ def sa jàppee sax dañ def sa jàppee soo leen Mm-hmm. léegi loolu noonu am nañu ah, dañuy wax na ci yu bari ci sëy man sëy yu bari léegi xalaat na tas na bu yàgg ndax lu tax dañu xamul ak sëy yi jéem na jigéen yoo xam ne loolu doo ko sëy léegi nag ndax su ñoo dañuy dégg ñu réerale wax naa yu bari dégg daan naa ko waxtaan théâtre bii ñu doon xaw jëm woon a xaw mm-hmm. ñii liggéeyoon pour ñu àtte sëy boobu erreur boobu duñ ko rek ba ilaa yow mi dinañ ko def seen dëgg Jojo moo benn waa ñu bokk ñoo bokk yàq. xam nga. ci lislaam da nga mas a gis ngeen am yow mag bi takk bàyyi rakk ji takkaat te ñu ngi ñu ngi dundee ñu ñaan ne lislaam dafa araam kon bu ñu ñëwee fekk na ko ustaas yow ñu laaj leen ci wàllu sëriñ boobu ba ngay laaj lu ñu bokk bokkaat ñoo bokk yàq kan moo ko jëkk a tax ñu ne ki nekkoon France lu xew ma ne ko sa capacité ñu ne d'accord nañ wax na keneen ki nag ñu ne bokk yaay ñu ne waaw keneen mu ngi defar sëy boobu du jour boobu la ñuy tas boobu moom la tuddee sëy bu yàqu amit teel a aw moom sëy sëy dina ko limité ci fase waaye na sëy bi la yàqu léegi bu jour moom moo ko la amul parce que frère la mu ngi dund bu la frère la dund dafa génn àddina sëy boobu dina fa waaye nag moom ci boppam dafa fekk vraiment mbir mi kon moom sëy boobu dañ koy dindi foofu la ñu te ñooñu doon àtte ba ñëwee rek ci bàyyi rek ñu ko ñëwee borom xam-xam. dëgg la ñoom ñaar ñoo bokk rek même bu doon ay doomi baay la ay doomi baay bokk baay dàggal na. léegi kon douze jours boobu mooy tey moom la ñuy dindi léegi comme bee dañu doon fas naa fas ak ñu ngi jëm ci loolu. nan la passé ndax façon am façon passé am su fekkee ci façon charte yu tàkk yi am li nga xamante ni charte yu passé yi am bu boobaa nag mu àtte xool bu dee passé passé léegi ci après dina bu la dee dee loolu bu la dee ñoo xam mais sëriñ bële moom balaa batul te man balaa batul la ñëw bi te ba tey àtte mu sëriñ wax te ñu koy leeral ci télé bi ñu doon wax ñu tudd ay ustaas ñu gën islam day war na ne yàlla ñoom nangu xam-xam ñi xam ne kii jëlee bàyyi ñu xamul dara ñu leen di laaj ñuy toog di réer réeral di ko dina réeral ci seen yoon loolu lañ la réeral Seydina Ali. wa sallam. yow lay war. ولا توتر بين قتيتر ولا خس يا تحويتر يا رسول الله sunge bis gaynde muy ree di ko muy bonde dafa laajul nag wa safande ya rasulallah nga kay mun laa jur lay xëy di ko noon du ko waagal day xëy di ko ruur di ko semmal yaa rasulallah ku la bañ yow lay war ku la tuutal kay nga ko tiital ku la xas yaa tax muy kër kër yaa rasulallah. ak ustaas bu jëlaat nii raf. dugg ci kër gi sax mu ne am naa kër waaye mu ngi taw. ay gërëm. parce que maîtrisé wu ko. waxtaan ci tànk bi ci bu ñu yeesoo moom yéegi loxo ñu yombal. mais ci xamoo moo doy waar. nee na moom wëndeelu bii. nangam ak nangam di wax loolu yow maanaam moom jaayoo. moo tax ñëpp dañu jàng wax. créé seen mbir créé sa programme créé nangam ak nangam. moo tax sax da ngay gis ne gëmuñu yàlla duñu jàpp duñu julli xam ne léegi boo bëggee amoon ko man nga organiser ay jàng pour ab jàngkat bi naa fexe organiser di fan bi daal di ñëw jox jàng yi macha allah pour seen i enveloppe jàng yi intéressé wu leen seen i enveloppe la intéressé. dëgg la. dafay dégg-dégg yi ñoo xam ne muy jàngoro naan ñii ñii jàngee man de ku gëmoon yàlla dégluwul yàlla dégluwul yàlla lañ yàlla dégluwul ndigal suñu borom foofu bu def ay jàng jàngiku la boo koy tey enrobé ko. te li ci gën a garaaw dañuy ëndulee sabat ëndulee sabat ba xam ne côté ko dox ñu ne ko loolu ci jàng. ñu ngi si ngan gi ñëw nit ki daal di dérégle loolu àdduna ak suñu te li gën a gaaw mooy te yëpp yàlla yëpp bu koy mu mel ni yàlla gis nga may nëbbu abdu bi di def bële saa bële abdu moo fay na mais yàlla moo gis kooku mooy gën a yëpp yàlla. tey nee na xorom da koy def soo xeex sax. da koy yëg tam ñun dañuy gis yàlla lay gis yàlla benn gis la. li ngeen gisal tuuti loolu la gisal lu rëy léegi ñun am na xam loo koy di nga xool di nga uy di nga di nga di nga di nga loolu yëpp day wane sax màgg bi damaa toog mais moom ci màgg wala benn xool yàlla bu la mémee da ngay gis moom day bu leeree da ngay gis bu ko soree mu benn gis la bu fekkee teew na benn gis la lu mën a doon benn gis la waaye ñun. cëy. loolu noonu de yàlla benn lay gën a ni muy jékki lu sori loolu lay jékki lu jékki amul changement ñun nag te déglu leen ma déglu waaye déglu ma déglu hmm. yokkal ma déglu wax dégg yu bëri hmm. na yàlla suñu borom bokkul ak moom te wala ay kuñu ko yaram yii muy defar ci kooku ko dinaa ko naan waaye kat bi ne ay sax ñoo koy wér ci biir dafa am benn sax mu nekk ci mbir mi mu ngi ci kër gi nekk ci ñëpp dañu ne bu ñu leen wëlee ci baamu neew yaram bi daal di neew sax bi mooy génn ci digg ginnaaw sax jëlee day jur quatre-vingt-dix-neuf sax sax mu nekk juraat quatre-vingt-dix-neuf sax ñuy def noonu bu dee jur quatre-vingt-dix-neuf sax ba yow ku la xool ni dootul gis dara sa yaram sax yu wër la. wala. ana taal ana jekk ana cooke ana fekk ana ana ana ana wala mooy yàqu dana ko def ak bu sax da nga entré moom ba ceeb wala tey sax ñu ne dañ ñu def ñaata sant te mën a fas. léegi am dem ba fees ba am lekk te lépp yaa ngi dund ñu war a demee ku dee sa yi. déedéet au contraire ñu ne foofu la dund tàmbali. muy bu ñu lay dugal ci bàmmeel bu nit ñi ma dégg yaa ngi dégg moo tax ne da ngay dégg dégg yaay bi ne am na doon naa koo nga ne ko yaay bi la am ndox bi léegi yaay nga ne bàyyi mën a fi léegi bàyyi nga ne jëkkër mën a fi léegi jëkkër sëriñ bi mën a may sëriñ kii fan la mën a may kër gi la jëndal woon dafay may lañ la daal kër gi ci boppam dañ la ko may gratuit waaye kër gi moom mooy fi ngay sax ba kër gi nga ne xat na mu ne dafa war a xat parce que wet bi ngay dëkk te jigéen ñu bare ji seen sëy sax xat na parce que suñu demee xaw ma jiwu li ma tuuti ko lii naan. wala sama ñooy dañ ma koy wax naan wax naan wala des fois dañuy baax mais rek ngay tuuti rek. li ci des ci ci taxaw bi la lëgëral nga lëgëral nii ci taxaw bi taxaw dañ fay teg dara wala suuf wala dara am na ñoo xam xeer lañ fay teg pour doo mën a def ñuy daal di jënd ko de. mais sëf la sa dégg sëf ci. am na jigéen ñi bàyyi ñu ne ñu doon def xew boo génnee fii jëm fii ci tànn ko baax jëm fii ci tànn bi da ngay jékki-jékki jël ay sol ba ci tànn bi fax say tànk ne la ci kaw baax ne dama xiif baax na ne daal lu ñu la sol bu kon boo demee fii dëgg sonn nañu muy jigéen ñu naan leen laaj xamul pratique bi fekk ruum bi mooy kooku ndox bu ñu la tasaaree bi nga yàgg dama mat mu ne war ba xam ne ndax daanaka ñetti fan nga tëddee hôpital yaa ngi koy nelaw kenn du laa jëm rek kenn du laa jëm xanaa danoon nga ñibbiwaat. dafa lëndëm ne sa néeg sax boo ko tëjee dafa am maam rek ne la maa sama suuf suñu kër. dafa tàng mu ne waaw fii bu tëjoo da naan bu leen palanteer sama kaw kenn tuuti waaye faam leen amul palanteer amul palanteer. moom fa def sax ñu ñu def noonu ñu def ñu génnee leen ci sax may taw ay daal wala dafa ay raaf yu am. wallaahi nga jékki-jékki lii lay seetaan ci film yi nga xam ne tey bu ñu demoon jaan mu ngi fi ndox suuf mu ngi kon ji bu lekk ay nga fekk ngay jaar lii nag yaa ngi koy génne ñëw. waaw mu ne man maa ñuy maa ñuy jiiti am na jigéen ñoo xam ne bàmmeel bu leen tàccoo xaar yi ma rombat ñeenu tax am na ñoo xam ne ëpp waaye neen dafa soof baat boobu nee na bàmmeel moom mënoo fee jaar mukk mukk mukk te bàmmeel lu mu wóor ci lool te dafa xew léegi mu toog nee na léeg-léeg gis gis benn gis gaa yi def benn xel muy dem di dem di dem di dem di dem ba nga jékki-jékki jàkkaarloo sawar mu ne ana xutbatu mais ko fi naa kii asay du doon rek ba ci doon def da nga war a topp sawar te nee naa ndaw boo ko topp góorgóorlu ba at le neuf ans bu dee jigéen le neuf ans ndax jigéen ci neuf ans la ndaw dëgg la buy am neuf ans wala bu gisee baax wala tëri làq bu ca kaw feeñee waaye boo xam ne fa la li ñuy war ci bàyyi koo wàcc moom li ñuy war ci yaay koo wàcc moom boo ko amee boo wàccee moom dina amul fort. fort sax dañ naan loo xam ne est-ce que vérifié ngay xam. dëkk bi di changé rek. bu commencé jënd ci feeñ rek dañ lay faral. naa dafa la fekk dafa war a fort. léegi nag kool boobu dafa xañ yow yaa koy xam. ndax yaa ko amee xam. bu dee góor dañuy abattre de treize ans parce que bu jéemtee rek moom la. kon kuy dox sa ndox góorgóorlu bi nga nekkee nii ba ñor léegi nag boo demee ba am 10 ans wala sax mag ngay dox dafa dox sa ndox sax mag ngay dox. ñu ne toll ci def xaw ma aay ba xaw ma naa noonu waaye nag weesu ko bàyyi moo jëm gis nga ne ay meel yu sotee baaxule. gis nga ne ko bàyyi. dëgg gisoo meel yoo xam ne cinquante ans jëm cent ans da ngay gis ñu amee xew wala dem sax ci loolu ñu xaw ma seen sotti nga assuré na xaw ma. léegi ñu mën ko dina mën a kii ñaari kii ñu taxaw ma kii mën nañu ko aay. ñu am na si léegi yoo xamante ni dañu weeroon ci ndaw. foo leen fekk ci jiw yëpp bu nekk di jëm jëm ñu ngi toog rek ak seen tool yu rafet. ñoom seen dugub la teg la xam nga lu tax dañu ko wàññi ci rek. dëgg la. wala amaa def dina fekk ñu dem yéen dara day leen alam ma dara. dëgg la. laaw comme koo xam ne mu andi maa ko waxtu boleh Islam badan ñu ko gis ak ay ñu wëra ay ñëpp loo ci mën a def te sax li tax ñu war a tiit mooy dañu wax ne ñu lee ba yow nag maa ngi ci bàmbe mais ñu lee ba yow nag ñu ne ñu ne ñu gis mbir ñëw na xam nga dañoo xam dañuy dégg duma wallaay yàlla sànni na ko ci lépp ni gaañee loo ci daal mu fekk loo ci daal mu naat am na yoo xamante ni dañuy diir malaaka yi dañuy diir kii ci seen bopp taw a bokk li ñuy dégg rek. ñu bàyyi laaj wax mais nag am na ñoo xam ne nii ngay gis sa projet ñu fekk def projet. Ah. jël yàpp def ñii def ñii def ñii teg am na nit ñoo xam ne ba bàyyi laaj loolu wax mais dañ leen di teg loolu boole leen ndax ñoom ñëpp ñoo toog loo wax bokk benn bàkkaar ku wax jiw fekk sama baaj jox sama morom mu dëgg la kii suulee kii dolli yéen ñëpp ngeen bokk bàkkaar bàyyi laaj ñu doon. nee na am na ñoo xam ne nii ngay tuddee jooy. Sina léegi noonu la leen di génne soxla. mu ne am na ñoo xam dañuy dégg rek ñu ne fan faal seen biir mu xotteeg ñu ne lu tax ñu def lool mu ne lu araam li ci nekkoon nañu kii nii ñaar nit ñooy dundee lu araam. damay liggéey liggéey la dafa damay liggéey mais nag liggéey dafa da ngay liggéey ndax yàlla da nga naan wala da nga doon. addina bu ko alalee addinaa ko la gën a. te addina bii ci lay ñëw. माझ्या शॉपिंग मोठे आंबे मिळवणे केले आहेत परिणामाने खांडवले पत्रांना करायला हे बॉक्स त्याचे आंबे ठीक है ये जाल का वक्त लगेगा हम्म देखिए तेरी जाल का दर पीने इतना मिनट में कुआं था हम या ते बाईस से करो mooy yàlla nañ fekk jigéen neuf mois huit heures sept heures mu topp tamit rendez-vous bu koy def ngeen doom bi yàlla mënoon na xool ñeewante la waaye yéen ne boo xam ne daal war a am doom yàlla nañ yaay yow gënoon solo doo gis sa doom bi xanaa yàlla mu gën dina ma bàyyi lay mu ne am na suñu yoo xam yow la fi am nii ngi def parce que yéen ñuy def dañuy ñu laal. voilà kii kii di jóg ñu ne fan la ñu jëm jëlee bàyyi laay ñu gën a jëlee ci ñu nekkee jëlee leen ci fa ñuy laaj te nekk ba ba mais nag dañ leen waroon doxal ñetti juróomiyaat la am na ñoo xam ne waaw suñu juróomiyaat am na ñoo xam ne seen laaj la ñuy la ñuy téye di ko xëj di ko xëj di ko xëj di ko xëj di ko xëj ngir nag wax lu ñu gën. waaw parce que jaay bi Sénégal tàkkee te coow li am ndax ku ñu yëg moom ci loolu wax nañu am ñu ne dëkk bi war naa mën a yëngu amoo tax aw fen day yëngal aas war naa mën a yëngal bépp. oui bëri na. li yëngal aas. ah réew sa yëngu. ah wallay aas ah, xamu ne yàlla nee na ñaari kër pour yàlla ne ak ay kàcc. Mhm. moo tax xaw ma ko góor gi xaw ma ko jigéen en tout cas ki ma la wax aw kàcc laa moom day yëngal day yëngal. wallay kon mën naa yëngal réew. wallay yëngal réew. wallay lu ci nekk seetal bés bu ñuy ñëw moom bàyyi ne mu ne dégg mu ne bés la boo ni góor bokk leen yaramu leen tànk leen xam nga yéen a jógee ak seen cër yi ñu def dinañ dinañ mu ne ko bu ñu gisee ci la doom bi dem leen rek ko ñu bàyyee bàyyi bi gën a ko seet ko ko gis ko ko def yàlla gis ku ci ko ñëwoon sa léegi nga ko def sa bàyyi kenn la bàyyi nga gis ne kii doo ko ne kii kii ko ne ci wet kii ko ne ci kii ko ne ci yéen ku ne ko ne parce que boobu yàlla kii mooy suñu baax dañoo bëggoon lu ne mun a am te lan moo tax doom yi am ñàkk teggin bi ñu ne parce que dañoo gisul bu ñu mujjee def gisuñu tey ku ñu mujj gis sa bàyyi wala ay nekk trois bi ñu def perte bi ñu toll nii woy jur yëpp moom la ñuy am suba yaa ngi gisal sa doom lu mu soxla lu mu nangam lu mu feetoo lu mu nangam nangam mais li sa doom def donc loolu bu fekkee coono yi gën a daje ak tabax seen yee mu ngi lijjanti wu ñu ngi ci sawar. dëgg la. ñu ne waaw loo koy topp ñu ne tuddee moom du baax. Mhm. pour gars yi bàyyi yaa ngi naan ay kër bu ay gànnaaw. jërëjëf. wala loolu. ak wéy bi ngeen soxla xoolal jamono fan la ñuy laaj sax traite bi nga am mosu doon loolu. donc loolu nag la ñu sax traite bi am na muy jógee am na ñoo xamante ni seen salaire xaaj na ñu yàgg ñu xamante ne pour ñu mën a teral doom te doom yooyu ñoo koy xaar yi ma xeex ko. loolu dafa am daal yow dafa def leen dàq ndax ñu dàq leen loolu ñu am am na ko foo toll am na ko foo xam ko noo mel am na koo xamante ne mais xanaa ko tey lépp ci maitre bi waaye dañu ne nekk ak yàlla rek. da mhm. ngay yëngu. macha allah waaye ah, dafa fekk jamono ji jamono ji wallaahi wallaahi boo gisee aw nit faj sama bopp da ngay yëngu parce que xaw ma ko yëngu c'est comme Serigne Ndiaye moom moo daan wax naan man mii sax xaw ma lu yàlla ngay xam. nekkul xam nga yàlla li defal ñoom. effectivement boobu. nañu ragal bés boobu. ku la ko waxee dina la matal maa bàyyi lay ne dina la tax tuuti ànd nee na kii tallante am ku la fi tallu du la tax ci tallante am boo amee njëriñ boo nee sëriñ tey ba nga ko doon am fexeel rek pour nga am niveau sëriñ niveau sëriñ kenn ku nekk su ko bokk li jëm ci li ñu wax. boo xam ne nii pour nga jot ko boo ko jot ko problème la waaw kooku yow nga xam naan man de kooku ko xool dara amul ko. wallaay. kooku mooy defal ko. wallaay àddina bii rek laa wax. jël fexe di jënd li ko léeg-léeg sa jënd di ko ci kër gi ñoo xam ne kii daal di sëriñ bi la mais bu dee sëriñ laa bëgg nga sëriñ dafa. dëgg la. dëgg la ah laa dem nag naan di yàq gars yi ko ay def. waaw. waaye fii de ñu bëggoon a lijjanti ñu ñëw na sëriñ. lu man ba ci laay dem nañ ko ci juróom balaa ngaa am balaa laay di wax am na de. te sëriñ si jox yomb nañ leneen nag moom xalaat ndax am na ñoo xamante ni ba ñu jéegul boo ko lañ jëlee xam dañ leen yóbboo ñu jéegul lañ jëlee bu leen fekk ñu xam fu lañ leen mën a dañ ko gën a xam sëriñ dinaa ko xam te bari na ñu ngi ñëw yow nag yaa boo nee sëriñ dinaa la yaakaar. lay dëgg. boo xam lay wax. tuur li àll yi la. alhamdulilah ndax neexoon na bàyyi sëriñ bi te jéemoon yóbbal nit tey. waaw xam nga. waaw loolu bàyyi man nag dama ko mën a defalee mais nit boo dajee yàlla yaa ngi doog xam ne li yooyu def. ndax la tax mun a jëriñ su ma la tax mun a may la def te su ma la tax xam ne yow ma gis andi nañu yàlla mi mën a wéy ànd may la toog may la faam may am xel may la yëpp nga foog a xaar. am na ñoo xam ne ñu ngi ko fekk sabat bi nga ko moom yëgal leen sabat mais jàng yi ci boppam kenn ko ci boole parce que yi ci yàlla intérêt loolu laay yëgal ci sabat yàlla la may yàlla loo xam ne day tànk li nga am di wax amul benn usine benn usine mais protéine yi ñu lay defar ku ne xam ne bi yàlla ko kon ku dellu loo ci yàlla dellu ci yàlla ndax yàlla ku ci dellu di nga dellu ci moom ku ci dellu moom di nga dellu daañu la consommé sànq. ku dellu ci moom nga dellu sa bopp moo gën a ñu lay delloo ci. ndax bu ñu lay delloo ci moom ne te ñu xam ne lislaam kilifa yëpp ci yem kenn amul ci ndigal kenn moo amul ci dara mooy li yàlla digal na nga digal ko. su yàlla tere dina tere ko waxuñu ba indi sa xam-xam bopp sa xel bopp sa xalaat bopp. Mhm. terewul noonu fi kenn ko. teral man kenn ji teral man kenn sax teral man teral moom ñu la fi dara dañu ne jëf ko jëf digle digle mhm. maa bàyyi lay xëy na mu ne ko mooy du mujj te tey jàmmale la dama nekk jëkkëri bàyyi mu ne lii lañ borom moo xam soo am jënd naa ko digle naa lii la woon nañ ko bàyyi bàyyi naa ko digle naa ñu bàyyi mhm. Mhm. jël maa ni kekk ni xëcc ni seet ruur bi génn dem ci Seydina Moussa. Thiel. waaw li ci am solo mooy li ma wax li ma yàlla dégloon def naa ko ci gën leen. waaye bu yàlla digle bi rek masalaa ak daraja ak maqaam di tere bu yàlla terewul nga tere bu yàlla digle ko digle moo tax ñu la defee. te boo ñëwee nga xam ne jàmm rek. kenn tegul bi yàlla daal. yàlla jaamu ñu ko moom leen ñàkk ko a jaamu moom la. soxlawul dara kenn moom rek lay soxla amul soxla yàlla amul aajo dara dara déranger yàlla bu la war a déranger dina soxla ko parce que nit ñi da ngay jékki-jékki di naan yàlla dafa mel. waaw. amul yàlla la laaka. yàlla rek. yow bu fekkente ne rek ci boppam xaalis nga amul ba naan yàlla lan laaka def mais xool na kii dem jeex moom lan la def yàlla sax la ci ay yow sax boo mën macha allah. du jeex. lu ko nekk war a xool wax mu ci jàpp li mu la defal nga sant rek. waaw man dinañ ko sant. kon yàlla benn maam lay. ñu ñaan allah ñu xamante ni sax la ko def naa. suñu kër soxna. yàlla def naa ne dafa am ci yéen ñu am li nga xam ne moom macha allah. parce que ñu ngi leen yàlla wax yàlla ci ndax soxna am euh, <laughs> nga ndax ku ci nekk daal fi nga ko teewoon baax na la. ku ci nekk daal di jàll ku ci nekk ku ci jot da nekk ci bàyyi yàlla yàlla dara ak mbay. parce que ñoom ku nekk ji daal. dañ ko xamul mooy sécurité. dañ la sax loolu day indi moom. te wallaahi ku ko xam ñu tëddee. ndax loo xam ne boo ko ñàkkee dañ koy bujjuwaat. moo xamante ni li nga am ñu téye. parce que xamoo bi ngay baax ñu mel. lenn naa leen di nga sëy bokkal ñu leen di wax. ndax am na ñoo xam ne ñoom xëy na ñu ngi sëy ko am. d'accord yàlla def am ndaw soo xamante ni comme ay góor yu doon loolu la benn waay yéen alal bu mujjee ñoo dem ba bëgg seen tool bi. Mhm. yéen a xam ne mu ne kii nag loolu ñaata ngeen di laaj mais ah bi day moo amoon moom ah, xam naa moom un million lañ leen di joxe mu ne ko daal di demee <laughs> loolu kii dina baax na xam nga xataa yi yeeg yéen mën a ko waaye daf leen ñaari mën ko jënd jaar bu ñu defee na mën a jaar bu ñu defee na mën a jaar doom rek ñu ne ah kon de xam naa benn bi kii am naa fi ñaar mu ko ay xaritam. ah kon baax loolu am na. ñu ne ah kon ñaar lay baax boobu. ah boo am na 500 mille am na 500 millions. tey. waaw wallaay. dina jox nga réalité la. ah ñu defar benn ji kooku yeeg yëpp macha allah. ñu ne ah kon sa soxna mu ne ah saa yu ngeen faral ngeen jéem a ñu leen xool xanaa ñu waajal rek ndax xaw ma koy dawal xam naa ma xam naa mooy ñaata ay baax yéen ñoo xamante ne am nañu jafe na seen am dañuy waajal. dem defar ba lépp macha allah <laughs> ñun daw seen biir mu def yaram bu baax saa yu xëyee rek doo ko def. ñu jooy ñu nangam parce que loolu moo ëpp fuuf. léegi parce que nee day jeex. te jikko jeex. jikko jeex. te yonent bi ne jigéen la am mhm. ko sutura. surtout boo xamante ne da lay jox waaye may na jàpp kenn. waaye kon yàlla na yàlla jàpp. amiin waay. yàlla ñu mën a. amiin. yàlla taxawu. amiin yàlla def ci yow. def ci yow ak yow ak yow ak yow. salaamaaleykum.